alors euh, ñu ngi ci invité ak actu deuxième partie euh, donc euh, Assane di fi dalal Mouhamadou Fadel Koné bu coalition Déthié président euh, mais euh, comme ni mu leen ko waxee aussi ci troisième partie bi dañ fi dalal ki nga xamante ne moo di Hamidou Thiaw di ab candidat recalé je pense que moom ñëw na réveil ñëwaat ah c'est pas la première fois donc dañ koy dalal bàyyi mu nuyoog téléspectateurs yi laataa ñëw soobu ci waxtaan bi monsieur Thiaw ñu ngi lay ziar di leen nuyu ñëpp. Mm-hmm. di nuyu tamit euh, ñëpp ñu seetaan à travers Walfadjri. Mhm, ñu ngi noonu ñu ngi lay fay mais dañuy dugg rek ci waxtaan bi ak euh, coalition Déthié 2024. ak Koné euh, Mouhamed Fadel dalal nañ ko déjà introduire nañ ko sur si si émission bi. Mhm. on est à trois jours de la fin de cette campagne électorale ngeen ni wër le pays de depuis boobu à trois jours de la fin de campagne la ban bilan ngay njëkk a tiré. un bilan. très très positif avec euh, le président Déthié Fall qui a quasiment euh, fait une très bonne partie du tour du Sénégal donc euh, on est parti dans le sud donc li ñu dese rek c'est le nord parce que ba démb ñoo ngi woon fii di Ndiassane Tivaouane dem nañu ba Bambey macha allah ça a été euh, extraordinaire et nous pensons que il sera la surprise pour ces élections parce que fépp fu mu dem euh, gis nañu engouement bi ak euh, population bi nu ñu koy accueillir nu ñu ko bëggee et tout donc euh, bilan bu satisfaisant vraiment nu ñu ci am. est-ce que est-ce que euh, foule yi ngay gis ci mbedd mi ça suffit pour dire que mën na nekk surprise parce que daanaka ku ngeen mobiliser. Mm-hmm. en fait ñun lu suñu particularité c'est quoi c'est que euh, département bu nekk on a des mouvements de soutien. Mm-hmm. donc c'est des gens c'est c'est c'est des partisans c'est des sympathisants et ñoo xam ni la ci localités yi nu ñu dëkk donc ñun. drainer wuñu ay foule nii rek pour juste drainer des foules non non c'est c'est c'est des mouvements de soutien ñoo xam ne du ñu nekk ci coalition bi comme man j'ai un mouvement national donc j'ai été même candidat recalé à l'élection mm-hmm. comme Amidou d'ailleurs et puis euh, euh, donc noonu la demee donc on a on a une très forte coalition beaucoup de beaucoup d'associations de mouvements et c'est ces mouvements et, et ces ñoom ñoom ñoo nekk dans les bases ñoom ñooy mobiliser donc c'est les sympathisants c'est les partisans une présidentielle c'est une campagne mais c'est aussi des discours et un programme euh, ñu ñëw un peu si le discours et le, et programme de, de de votre candidat euh, euh, Déthié Fall jël si yenn yenn points yoo xamante ne fas yéene nañ ko mën mën nañ ko waxtaanee pour rejoindre un peu wala être nekk si même ligne bi ak ki ñu doon waxtaanal léegi. Mm-hmm. Euh, jafe-jafe yenn yi bu ñu ko amee si réew mi dafa nekk ñi jiite am doole gu takku goo xamante ni yoon munu leen topp ni ni mu waree bu fekkee def nañu ay ay njumte alors ngeen def ay proposition par rapport à ces ces ce euh, ces secteurs la ñu tàmbali un peu sur le chef de l'État. le poste de chef de l'État euh, benn proposition boo xamante ni man ça ça ça m'interpelle directement. Euh, bu ma lire seen seen seen seen. Euh, pénalement responsable. pénalement responsable. avec les ministres également. effectivement mmh. donc proposition boobu naka ngeen ko nar a jëmbalee. waaw mais un chef de l'État parce que lu ñu seetlu déjà mooy hyper présidentialisme monarchisant bu nekk ci dëkk bi donc loolu duñu ko corriger et pour corriger ça effectivement il faudrait que ñu am équilibre des pénalement responsable su fekkee dafa def ay fautes de gestion ñu mën ko topp muy moom muy ay ministre donc lu mel noonu je pense que mën na corriger lu ni mel léegi lu ñu doon waxtaanee par rapport ak des Sénégalais qui se sont battus pour la patrie et après derrière y' a pas de suivi il y' a rien. Mhm. donc loolu c' est pas c' est pas du tout normal. Mhm. mën nañ ko poursuivre bu defee faute grave. mooy mhm. terme bi nga xam moom ngeen utiliser si seen seen seen programme bi lan ngeen wooyee faute grave. parce que souvent dañuy jël ay termes yoo xamante ni ay termes fourre-tout la boo xoolee euh, souvent euh, offense au chef de l' état des yoo xam dañ koy utiliser rek te xamuñ lan lañ moo nekk contenu bi haute trahison. xamuñ lan mooy contenu bi mais yéen ban ngeen def si seen terme mais faute grave bëri na ça peut être des fautes de de de gestion ça peut être de la corruption parce que même dans le programme la corruption duñ koy duñ koy duñ koy euh, comment encore le terme euh, la corruption duñ koy ça ça va être quelque ça, ça va être un crime en fait. Mm-hmm. ça va être jugé comme ça va criminalisé effectivement. Mm-hmm. le terme ça c'est pareil hein, parce que le chef de l'État aujourd'hui duñ ko dénk la destinée euh, des Sénégalais. donc ñu gis ni fii euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, juste un exemple xoolal problème mu lu ñu doon wax amnistie bi dernièrement mhm. on vient on fait des choses et à la fin on dit on amnistie ñu téye di di tëj te teguñu ko si sur aucune base la preuve li ñu teg euh, ñoom euh, le PASTEF on l'a vu donc bëri na comme vous avez dit c'est c'est un terme vraiment fourtout tout mhm. mais jar na éclairer wax li nga xam ni mi ngi ci mi ngi ci loolu mais c'est plus au niveau de la gestion parce que on doit avoir une gestion rigoureuse de l'État engagement bu ñu jël devant les Sénégalais ñu mën ko respecter parce que aujourd'hui Sénégalais yi ñu ngi dund une souffrance mais sans précédent et comme ni ñu ko waxee léegi élection bi le Sénégal est à la croisée des chemins aujourd'hui il faudrait que ñu ñu changer de paradigme changement de paradigme boobu dafa war a a am et c'est des dirigeants de nouveaux des hommes yoo xam ni ñoo ngi ci seen bi pas des politiciens comme ñun on est des acteurs de développement ñu ñëw bees ci politique bi pour indi ce changement et je pense que Sénégalais euh, ils attendent que ce changement parce que depuis 1960 ba léegi amul lenn lu politiciens yi mën a teg ci loxo askan wi. on nous vend du rêve depuis très très longtemps euh, euh, jamono ji ñu ngi si mun naa ko tuddee li ñu woowee euh, foir aux promesses depuis début de cette campagne électorale qu'est-ce qui différencie seen promesse ba yi ñu doon dégg. en fait nous on vend on vend un Sénégal bon à vivre et beau à voir Sénégalu dundum bu neex ci ci réew mu taaru te loolu jafewul pour ñu teg ko parce que aujourd'hui euh, de par notre sous-sol on a une richesse extraordinaire du sous bi sax mais li nekk aussi ci sur bi mm-hmm. on a on a on a des heures d'ensoleillement yu yu extraordinaire on a beaucoup d'eau euh, et je pense que euh, dëkk bi mën nañ ko defar su fekkee di aujourd'hui y a des y a y a y a des personnes déterminées déterminées programme bi yaay trois cents experts des cadres de de de de PRP ñu toog bind ko ku si nekk sa xam-xam màcc ci benn domaine bu spécifique mu nekk un travail rigoureux boo xam ne tey def nañu analyse un diagnostic profond de ce que le Sénégal traverse de ce que le Sénégal vit pour ñu mën a aujourd'hui faj euh, naqaru sénégalais yi mën leen yóbbu dans des lendemains meilleurs à travers une refonte de l'éducation nationale corriger tous les problèmes defaraat au niveau de la santé au niveau euh, de l'agriculture euh, agriculture bi aujourd'hui moom mooy moteuru li nga xam ni moom mooy euh, développement bi et on peut se baser pour même accélérer l'industrialisation et tout ça corriger aussi le problème du manque euh, d'emploi ñu gis ni aujourd'hui euh, taux de chômage bi dafa extraordinaire on a quitté en 2011 à 10 pour cent pour arriver aujourd'hui à 25 pour cent euh, tout ça euh, euh, inch'Allah le président Déthié Fall s'engage au soir du déjà au soir du 24 mars incha allah prochain mm-hmm. su nekkee président mu mën a corriger naxar naxar yi nga xam ne sénégalais ñoo koy dina ñëw un peu sur euh, sur la santé mais on reste ñu reste un euh, les institutions mm-hmm. on a parlé euh, du président de la république des ministres ñi nga xamante ne dañ leen war a topp si yoon ni ñu toppee yeneen euh, yeneen yeneen Sénégal même si aujourd'hui mën nañ leen topp ñenn ñi ak haute cour de de de de justice mm-hmm. euh, leneen loo xamante ni j'aimerais aussi ñu taxaw si muy les fonds communs euh, disons les fonds euh, les les caisses noires les fonds. Euh, fonds fonds yi nga xamante ni euh, institutions yu bëri dañ koy am. présidence de la république premier ministre présidence de l'assemblée nationale ak yeneen institutions yi nga xamante ni ji ngi si euh, yéen ñenn si homme politique yi dañ ne dañ ko war a supprimer fas simplement yéen vous proposez un contrôle. oui mais ñu wax ni Sénégal li fi nekk yëpp dafa bon. Mm-hmm. effectivement il faut des fonds mais il faudrait que ñu mën ko contrôler mu mën a nekk ay budget yoo xam dañu koy voté xam clairement pour lan la loolu je pense que c'est tout à fait c'est tout à fait normal euh, il faut pas qu'on soit dans des discours euh, populistes di di di prôner yoo xam ne après demain ça pas être je pense que y a beaucoup de présidents qui ont fi qui ont eu à beaucoup de promesses par le passé et qui n'ont qui n'ont jamais je pense que faut que ñu mën a proposer Sénégal yi li nga xam ne xel mën na koo nangu parce que aussi dooni non dañuy supprimer fonds yooyu noonu euh, te aussi normalement. Mais même le financement des partis politiques tout ça. ku ñu jox budget pour nga liggéey est-ce que soxla nga ay fonds fonds euh, mais mais caisse noire bi c'est pas c'est pas en fait en en, en quelque sorte c'est pas on dirait pas parce que caisse noire moom la ñuy wax il faudrait qu'on contrôle ça qu'on puisse dire aujourd'hui ça va être voté au niveau de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. lan lañ ciy def exactement c'est pourquoi peut terme caisse noire c'est un peu péjoratif on peut trouver encore un autre terme c'est des fonds politiques effectivement pour xool loo xam ni wut organe de contrôle de ces fonds euh, et puis euh, destiné au chef de l'État euh, ou bien au gouvernement pour faj li nga xam ne mooy yeneen mooy comme lu ñu proposé au niveau euh, des fonds politiques parce que euh, le financement des partis politiques loolu lu ñu lu ñu war a xoolaat la parce que gis nañu am nañu ay coow récemment si ay fonds yu jógee ci yeneen pays Euh, te loolu c'est des menaces aussi parce que le pays aujourd'hui il y a beaucoup d'enjeux il y a le pétrole il y a le gaz et après si su fekkee dañu am ay financement extérieur di financer ay yenn parti mën na andi problème mhm. euh, par des conflits d'intérêts et autres alors euh, delà de, des institutions bu ñu naan institution dañuy des un peu euh, sur la justice sànq évoqué nga ko par rapport à la loi d'amnistie bi nga xamante ne voté nga ko sa candidat jàpp ni bu faloo de revenir waaw mais euh, xam nga balaa nga naan amnistie il faut que nga rétablir la vérité il faut que nga andi la justice ba pare soogee ni réconciliation loolu moom mooy yoon mais mënoo tëb tëb rek euh, pour des faits yoo xam ni amoo ci benn benn taxaw taxaw seetlu ci fay c'est c'est c'est pour man dafa dafa xaw doy waar moo tax il a di une fois élu il faut que mu revenir pour que au moins les familles des victimes ni nga xam ne tey tooñ ñu leen ñu mën a xam vérité bi fan la nekk ki ce qui s'est passé réellement de 2021 à à tey qu'est-ce qui s'est passé ñu mën a rétablir cette vérité et après faire la justice ñi nga xam ne aussi tey duñu duñu duñu duñu duñu duñu leen duñu ñu faatu wala ñu wala ñu tooñ leen wala ñu gaañ leen ak yooyu ñu mën a ñu mën leen tey euh, ñu mën leen tey ñu mën a xam exactement ce qui s'est passé euh, ci période yooyu donc revenir sur cette loi la c'est juste pour ñi nga xam ne ñoom ñoo si euh, euh, loru mais euh, concerné wul su la déggee ñi nga xamante ni par exemple ñoom ñoo ñu tëjoon si kaso yeeg. waaw mais ni ñu tëjoon parce que tey aujourd'hui mënoo ni nit c'est un mm-hmm. woo ko après tu tu le relaxes xam nga loolu ça n'a pour pour ñun sa n'a pas de sens. Mm-hmm. te tu es parce que munoo téye nit tëj ko. Mm-hmm. jugé woo ko ni après da nga koy amnistier. loolu li ko indi est-ce que du doole bi ñu jox parquet bi. voilà donc moo tax ñu ni ñun on va revenir sur ça euh, ki nga xam ne mooy procureur bi ñu ko war a nommer et aussi def juge des libertés parce que euh, gis nañu Sénégal justice bi tëddeewul njaaxaanaay te loolu c'est c'est un très très grand problème moom mooy euh, justice bi dafa am problème et ça dafa am ay conséquences après sur euh, sur sur la vie des Sénégalais. juste bi tëddeewul njaaxaan est-ce que ce n'est pas trop dit parce que boo xoolee euh, euh, résultat yi nga xamante moom moo mujj a jo moom lañ fi mujj a gis conseil constitutionnel cour suprême bu fekkoon ni dañ leen weñ seen loxo est-ce que dina demee nii. waaw mais ça dépend de l'approche en fait ñun li ñuy wax mooy que aujourd'hui su fekkee ñi nga xam ni tey ñoo ñoo ngànk justice bi. Mhm. du ñu nekk ci responsabilité ministère de la justice. boo xam ne directement son chef c'est le chef de l'État donc normalement une partie peut être influencée mais pas tout le monde mm-hmm. moo tax euh, juge dem doon wax naan j'ai démissionné d'une justice qui <laughs> a démissionné loolu gis nañ ko Sénégal mm-hmm. gis nañ par parloo bi donc loolu aussi li nga xam ne dañ ko corriger mm-hmm. euh, parti bi ngeen bëgg euh, dagg cordon ombilical bi ak euh, euh, exécutif bi euh, le parquet fi mu nekk nii li ñu xam moom mooy ministère de la justice ñoom ñoo koy nommé ministère de la justice le chef de l'État moom moo koy nommé donc am na benn ligne alors ngeen ne dañuy changer ni ñuy nommé le procureur. Mhm. ba pare buñ ko nommé kenn mënu ko fa jëlee. du du durée durée durée. cinq ans durée mandat mais ñan ñoo koy nommé. waaw mhm. mais loolu c'est une c'est une c'est une organisation une très bonne question. Mhm. organisation moom mën nañu nekk mën nañu ko peut-être. Euh, mën nañu mën nañ ko def au niveau de l'Assemblée nationale. Mhm. mën na mën na nekk beneen beneen beneen beneen aussi mën nañu aussi organiser ñi nga xam ne ñoo les justiciables seen biir ñoom ñu def élection bi. wut koo xam ne ku neutre ku transparent koo xam ne tey dina mën a toog pour cinq ans et def li yoon euh, santaane. Mhm. mais procureur boobu mbaa du mujjee am trop de pouvoir lui aussi mujjee dal suñu kaw di rëkk suñu ndigg. rëkk ndiggu kan. ñun Sénégal ñun xam nga dañoo rek suñu ndigg ba ñu yàqu léegi fi mu ne nii trop de pouvoir bu ñu bëgg a wàññi fee. bu ñu ko jëlee jox jox ko kii 5 ans ñu ne ko yow 5 ans yaa fiy toog y a mën nga toog voté nañ la ko nii la demee est-ce que aussi genre du tëdd nelaw ba yàndoor pour dire que y a pas de la. kenn du ma kenn du ma folli. loolu en amener de la transparence tey gis nañ conseil constitutionnel ils sont là ans je pense que loolu moom mooy li normal c'est pour mm-hmm. éviter que exécutif bi di mêléwu ci li nga xam ne mooy judiciaire bi mm-hmm. pour assurer l'équilibre des pouvoirs loolu c'est important trop de pouvoir euh, oui. je ne pense pas il faudrait que peut-être justiciable yi ñoom après ñu organiser seen biir mm-hmm. pour mën a définir limitation pouvoir yi ak yooyu comme ni ñu ko waxee. tamit c'est une à Mmh. autre chose bu ñu naan politique souvent si ñi nga xam ñoom ñooy dem ay élections euh, y a un débat qui revient muy le cumul des mandats euh, bokk ngeen ci coalition Yewwi Askan Wi. Mmh. coalition bi dem à une à deux élections législatives ak euh, territoriales. Mmh. mu am ci coalition bi ñoo xamante ni daanaka ñu ngi deux mandats ñu ngi deux mandats. cumuler deux postes. Aujourd'hui, dans votre programme, vous voulez interdire ce, ce, ce, de mandats-là. Est-ce que loolu warul ko ñu ko tàmbalee xeex ci seen coalition déjà. waaw mais xam nga lu nekk rek dafa am euh, dafa am euh, période bu ñu koy enclenché. Mm-hmm. parce que aujourd'hui Yewwi kooku je pense que c'était avant. Mm-hmm. et te loo xam ne la dañ ko bokkoon ak yeneen ak yeneen coalition ak yeneen parti mm-hmm. donc voilà donc aujourd'hui on parle de de la coalition Déthié Fall 2024 donc ñun suñu gis-gis par rapport nu ñu waree yoree Sénégal. les cinq ou dix prochaines années mooy que lu ñuy xalaat cumul de mandat bi duñ ko war a dindi c'est pour permettre aussi et donner la chance aux autres ñu mën a occuper yenn poste yenn poste yi parce que mënuñu comprendre aujourd'hui yow nga nekk député normalement sa liggéey député rek waroon na la doy sëkk ba nga bañ a mën a nekk maire parce que liggéey maire aussi beneen affaire la donc loolu c'est je pense que c'est le bon sens aujourd'hui euh, liggéey mairie kese kese doy na nit Euh, vraiment yenn boo xam ne mën nga ko gérer pendant cinq ans. Euh, le chef de l'état Macky Sall jaayoon nañu di euh, gouvernement bu xamante ne du yaatu yéen ngeen ñëw avec un gouvernement de 30 ministres au maximum oui. mais est-ce que l'efficacité d'un gouvernement dépend du nombre de de de ses ministres mais moo tax ñu ni ñun aujourd'hui les ministres naka nañu leen di choisir mooy appel ak candidature et les ministres Euh, c'est ce que le président euh, autant pour moi euh, je parle je voulais les, parler les, des directeurs, directeurs des directeurs généraux mmh. de candidature mais les postes ministériels aujourd'hui pour ñun trente euh, suffit pour que ñu mën a doxal un gouvernement euh, correctement et aussi euh, je pense que on a on a assez assez de potentiel au Sénégal te lépp tamit waruñu ko politiser. parce que gis nañu ni aujourd'hui poste ministre yi c'est très très politique c'est des gens yoo xam ne on met pas les bonnes personnes aux places qu'il faut mais du ñuy jël politique yi def ko ci ci ci ministères yi euh, te du am après euh, du am après euh, benn benn benn dynamique boo xam ne mën nañ ko mën nañ ko gérer ba mën a génne askan yi si coono yi et puis ce qu'on a dit aussi mooy que les outils de pilotage on va les imposer au ministre c'est-à-dire euh, les, tout ce qui est outil outil de management pour que ñu mën a efficace efficient mhm. et déjà on le sait au Sénégal euh, déjà technique bi nga xam ne tey mi ngi ci euh, mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci secteur ministériel euh, technique bu am solo parce que c'est des gens euh, rompus à la tâche hyper expérimentés mais encore mieux si tu mets les bonnes personnes au place qu'il faut gouvernement bi day dox correctement. Mm Euh, foofu laa doon ñëw ak yow sànq si si si si si nombre bi est-ce que du si profil yi la ñu war a gën a xalaat que si nombre bi. Euh, c'est de ça que je parle effectivement parce que aujourd'hui ku euh, mel ne man je suis un civil. Mm-hmm. tey soo ma dénkee urbanisme wala nga dénk ma environnement wala nga dénk ma habitat. apport bu ma ci mën a andi de par mon parcours de par mon expérience du bokk ak koo xam ni c'est un médecin nga koy dénk loolu te loolu nañu gis déjà ci gouvernement yi nga xam ne mi ñoo ngi koy constitué au Sénégal depuis longtemps on prend des personnes des médecins yóbbu leen ci ci li nga xam ni mooy élevage wala ñu yóbbu leen ci artisanat mhm. alors que y a des gens qui sont hyper compétents dans ces domaines yoo xam ne yellool nañu ñu mën leen teg ci poste yooyu mhm. ñu mën a doxal euh, doxal bi nga xam ne moom moo war Euh, sànq tudd nga ko léegi les directeurs généraux aussi am na ay changements yoo xamante ne bëgg ngeen ko def si ni nga xam ne noonu lañ leen nommé muy appel à candidature euh, à compétence égale ma bokk ci coalition Déthié Fall yow bokkoo ci kan la taan tànn euh, loolu je pense que le président Déthié Fall a été très très clair c'est pas parce que da nga bokk ci ci coalition Déthié Fall que nga nekk priorité par rapport ak poste foofu déedéet dañ koy loolu dañ koy dénk organisme boo xam ne bu indépendant moom moom mooy def li nga xam ne mooy sélection bi et puis le président de la république ou bien euh, avec son ministre ñoom ñu valider profil bi nga xam ne jël nañ ko loolu tey gis nañ ko Sonatel moi je un ancien de Sonatel ba may dugg Sonatel duñ duñu duñ ñu duñ ñu euh, jaarale ci benn processus de sélection bu bu bu bu extraordinaire déjà benn euh, y a les départements les directeurs et les services déjà ñoom ñooy daje pour mën a euh, def ak yow un premier entretien et après tu viens su fekkee bokk nga ci sélection bi tu viens avec le directeur général loolu nu ñu war a def euh, loolu moo mën a tax affaire yi dox moo tax tey aujourd'hui la preuve euh, Sonatel dafa bokk ci entreprise yoo xam ne yu gën a performant en Afrique et dans le monde d'ailleurs ñoo ngi koy ñoo ngi ñoo ngi doxal normalement noonu tey gouvernement bi suñ ko tëggee noonu am nañu yaakaar ni daañu soppi rapidement xar kanamu Sénégal. bëggoon naa xam lan mooy xalaatam ci coowal déclaration de patrimoine bi ndax dee <laughs> sa candidat def na sa déclaration ou pas. bon euh, pour le moment euh, je pense que defu ko mais li mu war a def la et d'ailleurs mm. euh, tey aujourd'hui suñu suñu yàlla maye ndam et on l'espère très très bien incha allah. Euh, ñun ñëpp dañu war def déclaration de de de patrimoine et mm-hmm. ñun ñëpp xam nañ ñuy Déthié Fall Déthié Fall ne fait pas partie de ces milliardaires euh, yu ñuy wax d'ailleurs foofu je pense que ñun su man sama avis. d'ailleurs il est dans le privé. Hein, pardon dans comme moi aussi je suis dans le privé. Mm-hmm. donc ñi ko wër ñi ci gën a bëri ci mm-hmm. privé bi ñu nekk amul kenn koo xam ne tey mi ngi ci je pense qu'on sera à l'aise pour dire euh, tey on n'est pas des milliardaires on est. des Sénégalais normaux ñu yéene Sénégal euh, yóbbu ko ci beneen ci beneen dimension. mais est-ce que c'est pertinent d'attendre euh, ñu fal d'abord nga soog a def sa déclaration parce qu'on a entendu Mamoudou Ibra Kane dire que Amadou Ba day xaar ba ñu fal ko ba pare mu soog def déclaration est-ce que du léegi ngeen ko war a def. bu ko defee loolu ça pas euh, mën nga bàyyi bu ñu fal la aujourd'hui suñu la falee au lendemain tu peux faire ta déclaration ça gêne rien. Hmm. loolu c'est ce que la loi impose. waaw ouais. ça ça en rien que nga mën ko def au lendemain de tes fonctions ñu bañ kañ mooy nga dawal randal lu bëri après soogay. soogay déclaré <laughs> je parce que loolu moom mooy. moom euh, dafa alors Mamadou Fadel Koné euh, euh, sànq tudd nga wàllum emploi des jeunes. Mhm. on nous promet on nous promet énormément d'emplois à chaque élection malheureusement le constat mooy chiffres ñuy wax. duñ ko jotee euh, yan stratégie ngeen bëgg ngeen mën a teg ak comment vous allez compte vous comptez financer la création de ces emplois là. en tout cas man mi nekk ci coalition Déthié Fall bokk naa si ñi nga xam ni laata sax ñuy dem di wax ñoo ngi diriger un gouvernement on a créé beaucoup d'emplois dans le domaine de la construction dans d'autres domaines. Mm-hmm. non seulement ay emplois mais aussi former euh, des groupements de femmes former former. former des jeunes mhm. euh, dans le domaine du bâtiment et dans d'autres domaines comme la boulangerie, la pâtisserie, la restauration, ainsi de suite. Mhm. Donc euh, ñun euh, création d'emplois jaaxalañu nu ñu mhm. koy monter jaax nu ñu koy financer aussi jaaxalañu parce que déjà euh, rien que ñu sukkandiku ci agriculture on peut euh, passer par la formation et créer beaucoup beaucoup beaucoup d'emplois parce que ñun la ñu lu ñu wax déjà c'est la maîtrise de l'eau aujourd'hui le Sénégal deux pour cent des terres arabes sax utilisé guñ ko tey soo demee dans le nord y a des terres qui qui ont été aménagées ba léegi kenn utilisé wu ko mais former les jeunes les accompagner te loolu on n'a pas besoin de sommes extraordinaires c'est c'est c'est c'est financement mën nañu ko gérer et puis aussi transformer la transformer. Euh, na ko aussi donc mettre en place des industries dans les 46 départements lu aisé lay doon incha ñu mën ko def parce que en termes de construction de logistique. et euh, ak yeneen anam aussi dekkilaat li nga xam ne moom mooy industrie je pense que à Thiès bu ñu fa demee c' était ça euh, la déclaration c' est dire ñi nga xam ni ñoo ngi foon Sodifitex Sotiba tout ça dañ ko war a dekkilaat et pour ça et ko aussi de spécialistes ñoo xam ne mën nañ ko doxal mën nañ ko redresser ñu mën a déjà euh, yokk. mën na koo liggéey est-ce que du formation bi moo waroon jiitu. effectivement loolu laay wax ma ni on va passer par la formation balaa ñuy wax euh, l'emploi parce que tey aujourd'hui problème bu ñu déjà il y a beaucoup de jeunes qui sont formés. mënuñu leen dugal fenn. déjà ñi nga xam ne tey fo am nañ formation ñu mën leen euh, caser fenn mais ñi nga xam ne aussi formé wuñu leen ñu mën leen former ci métier bi nga xam ne bëgg nañ ko loolu c'est important il faudrait pas que ñu jël ni di former leen imposer leen ay métier li nga xam ne bëgg na ko nit sooy def liggéey sooy def benn mbir day fekk nga nga nga nga mu nekk li nga bëgg mm-hmm. parce que après tu le fais tu Mhm. Euh, ci euh, migration lay wax parce que ça me vraiment euh, gis nañ ne ci at wi lu tollu trente deux mille jeunes jël nañ gaal gi dem Espagne yéen coalition Déthié de Déthié président lan ngeen fas yéene teg par rapport ak loolu noonu nga xam ne touché na loolu réew mi di migration bi déjà loolu c'est phénomène international yàgg na ci ci ci Euh, mais je pense que li gën a gën a am solo mooy li ñu doon wax léegi permettre à la jeunesse ñu mën a am formation mën a am emploi fii ci dëkk bi parce que tey gis nañu ni gouvernement yu fi jaar yëpp dañoo lajj ci wàllu boobu man dama jàpp ni peut-être laata ñuy falu du ñu amuloon du ñu ànduloon nag wala wala ñu mënuñoon créer des emplois pour mën a tey aujourd'hui mën a xam mécanisme yi nu mën a teg en place pour mën a mën a créer emploi yooyu problème bi lool la parce que désespoir bi nga xam ne la jeunesse am na ko et aussi la migration il faut l'organiser te loolu c'est dans la diplomatie je pense qu'on devrait duñu war a mën a am intérêt pour accompagner certains jeunes yi nga xam ni vraiment bëgg nañ dem notamment man man j'ai j'ai été émigré man j'ai été en Suisse j'ai fait mes études en Suisse mais balaa ñu ma jox visa dama signé ni man su may paree sama jàng damay dellu si te loolu laa def dama pare sama jàng ñibbi si pour servir mon pays parce que loolu moo ma intéressé donc il y a deux aspects l'aspect aujourd'hui accompagnement par la diplomatie par euh, les ambassades ñi nga xam ne tey ñoo ngi lëkkaloo ñu mën a ñoom yenn jeunes ñi xam ni mën nañ leen permettre ñu dem et beaucoup de pays se sont comme ça il y a la Turquie qui s'est qui s'est développée comme ça euh, permettre euh, ces populations ñu mën a dem migrer ci yenn pays dem jàng xam-xam dellu si ñëw servir réew mi foofu la ñu war a yóbbu migration bi et après aussi permettre aux jeunes aussi ñu mën a liggéey ci dëkk bi. <laughs> pour mën a liggéey faaw ñu am industrie yu ñu liggéey sànq yaa ngi naan. Mhm. bokk na si seen projet industrialiser le pays. mais ku ne mhm. industrie ne énergie te suñu énergie maîtriser guñ ko. Euh, ñoo ngi ci yoon bi ah. du ma ni maîtriser wu ñoo ngi ci yoon yi maîtriser énergie parce que euh, euh, je pense que le président Macky Sall a beaucoup fait dans ce domaine te ñun lu nga xam ne la koy gën a gën a gën a améliorer. Mhm. léegi maintenant li ci des mooy la maîtrise de l'eau Euh, loolu moom mooy challenge bi euh, naka nañuy def ba euh, ku bëgg bay par exemple mën a bay ci zone bu mu nekk ñu mën a am forage mën a régler aussi problème problème foncier bi. comment faire mais loolu yëpp ci ay waxtaan. mën na nekk ci ay waxtaan. régler le problème foncier c'est possible avec à travers à travers. parce que le chef de l'État lui-même wax na ni la majeure partie de alerte yi muy jot. ci mhm. coowal suuf la. waaw mais kooku c'est un grand grand chantier je pense que le président Déthié Fall su ñëwee incha allah dina si andi les réponses mhm. qu'il faut euh, ku ko xam-xam ni c'est un c'est une personne structurée organisée mhm. qui est très très rigoureux par rapport à ça mais cool suuf bi lenn mënu ko régler lu dul mooy waxtaan mhm. waxtaan avec des populations jéem a def teg de des des cadres de concertation pour régler ce problème et très très rapidement je pense qu'en un an de magistère loolu mën nañ ko def incha allah. Mm-hmm. si seen programme Assane ils ont insisté ci euh, industrialisation bi foncier bi mais santé aussi je pense que jox nañ ko ci pàcc bu am solo parce que wax ngeen ko di ngeen defaraat le plateau médical mais recruter euh, euh, personnel bu doy mais bien formé aussi je pense que loolu dina baax nga ñëwaat fi parce que nag jamono ji santé nekk na loo xamante ne lëmbe na xelu sénégalais yi. Euh, santé bi comme ni nga ko waxee. déjà résumé nga programme bi. moom mooy naka nañuy arriver à former le personnel de santé. kooku c'est important les surtout les personnels yi man damay gis les pays européens yu ma dem euh, si seen urgence yi wala seen accueil yi les gens sont tellement bien accueillis ba après une partie de ta maladie même disparaît de manière psychologique. il faut ñu yóbbu foofu Sénégalais yi. Mhm. il faut yóbbu foofu suñu personnel bi parce que des fois gars yi dañu bàyyi gars yi dañu lay dañu déjà euh, problème bu ñu am des accidentés wala ku am feebar dem urgence gars yi ni la euh, tant que on va pas on va pas on va pas t'interner mais t'interner mais loolu dafa ci dëkk bi. Mhm. te incha allah nañ pour jeexal ko. vraiment de manière euh, de manière très très très très rigoureuse et aussi euh, yokk le plateau médical def Dakar mu nekk benn ëpp boo xam ne aujourd'hui au niveau de la médecine comme marocain lu ñu def ñun mënuñu comprendre tey. mais sur le plan de la santé le chef d'État a démocratisé la santé par rapport aux infrastructures. waaw mais mais ba léegi dafa des dafa am liggéey bu bëri bu des déjà les au niveau des équipements il y a beaucoup de choses qui manquent euh, au niveau du personnel même euh, parce que aujourd'hui da nga dem ci yenn hôpitaux yi amul sax amul amul dara dugal ci dëkk ci ci biir ci biir ci biir Sénégal des profondeurs nga dem ci hôpitaux yu bees yi tey y a pas de cardiologue yoo xam ne ou bien cardiologue su fi nekkee benn yoon dafay ñëw ci mois bi loolu dafa war a jeex. mais mhm. alors qu'on a le personnel comment on fait pour organiser le temps de travail de nga xam ni c'est le médecins euh, comment l'organiser et tout ça c'est ça va un chantier boo xam ni euh, dédié à la santé et aller aussi vers une santé boo xam ni gratuit gratuité des des, des soins euh, ci xale yi ci mag ñi ci bépp Sénégalais boo xam ni war nga faju sànq maa ngi si doon wax sànq ak énergie yaa ngi ma naan le chef d'État a fait des efforts par rapport ak li fi nekk am na lu bëri dugg na fi une euh, euh, question fermée est-ce que oui ou non vous comptez euh, renégocier les contrats de concession par rapport ak suñu énergie renouvelable. lu ñu war a njëkk def c'est d'ailleurs valable valable pour tout tout mooy les audits déjà du ñu ni lu fi nekk lépp dara baaxul loolu c'est soo ko waxee c'est un discours populiste te ñun du ci discours yooyu. Mhm. ñun on est dans dans le pragmatisme. Euh, xool euh, déjà saytu que ce soit des contrats de pêche que ce soit des contrats euh, contrat bu mu mënti doon li ñu war a def muy auditer xool li nga xam ni tey teg nañ ko proposer nañ ko su jaree renégocier on le fait su jaree rompre aussi on le fait. Mhm. Mhm. mais pour l'intérêt du Sénégal. Mmh. et mu nekk aussi euh, su fekkee ay partenariats. internationaux mu nekk du gagnant-gagnant. tudd nga pêche bi léegi un secteur qui regroupe à peu près six cent mille bu ma bu ma jumul si mhm. chiffres yi nga xamante moom moo mujjee génn euh, ci euh, secteur artisanal bi un secteur boo xamante ne aussi un secteur à problème avec énormément de licences qui appartiendraient à des sénégalais yoo xamante ne seen i bateau pavillon euh, yu yu yu fi bokkul la euh, audit boobu nag nak naka ngeen def pour licence yooyu dellu si Sénégal ngir Sénégalais yi dootuñ génn ngir pêche ji à Mauritanie wala ñuy dem Guinée Bissau ba da ay lor dinañ fekk. waaw mais audit ku ñuy audit kañ mooy jël spécialiste les spécialistes dans ce domaine regrouper les acteurs euh, def des cadres de concertation waxtaan xoolaat li nga xam ne moom mooy contrat yi saytu contrat benn par benn parce que gis nañ ko ay prête non. Euh, ci par exemple des chinois qui viennent euh, mm-hmm. tey mm-hmm. Assane <laughs> jox def contrat bi si sa tour mm-hmm. alors que sa ça leur appartient euh, loolu neex naa lijjanti neex naa lijjanti je pense voilà damay juste laaj benn question rek excusez-moi mais par exemple tey su amee litige y a problème ci benn contrat et dans le contrat ñu bind si la juridiction compétente yóbbu ko ci beneen dëkk xam loolu ça veut dire que état du Sénégal amul droit juger wala casser contrat boobu. Mm-hmm. c'est-à-dire que le contrat su nekk France de la juridiction compétente la nekk. France yi ñoo mën a àtte. Mm-hmm. dans ce cas si le Sénégal ne day romb contrat boobu kooku dem porter plainte France France ne Sénégal na fay sinon on va saisir vos biens à l'étranger dans ce cadre euh, looy loo leen di mm. mais loolu aussi diplomatie bi mën na ko régler parce que je pense que euh, c'est pas juste mën na nekk aussi dans l' autre sens. bu may waxee loolu moo tax. bu koy waxee mooy Macky Sall ak euh, le taux mm-hmm. je pense qu'il a essayé de renégocier wala casser mais de tous les côtés il a été bloqué. Mm-hmm. fu mu mujjee mooy yokk location bi. Mm-hmm. ne suuf bu télé bi di jaar. Sénégal moo ko moom damay yokk location bi à 900 millions 1 milliard par mais il y a certains contrats c'est tellement bloqué que quand les gens disent qu'on va renégocier. ou que c'est pas parce que si bloqué da nga tëj te euh, autoroute à péage bi benn la si. Mmh. duñ ci am benn porox ndoolu buñ mën a jaar. voilà mmh. donc c' pour ça damay wax ñun nañuy moytu tout le temps ñun politiciens yi. Mmh. di wax loo xam ne ay promesses mais ëllëg du ko a tenir. c' est euh, problème bi ngay wax ni am na ci ci ci côté yëpp. mais aussi je pense que euh, on a les intelligences qu'il faut pour contourner li nga xam ne moom mooy problématique yooyu. Euh, normalement. ci domaine bu nekk nag. Sénégal ay compétences kese la ay nit yu xarañ ñoo fi nekk d'ailleurs dañuy dem ba à l'étranger di régler euh, plein de problèmes par rapport si euh, domaine bu nekk donc on a les intelligences te suñ ci tollee incha allah daañu mën a teg les mécanismes pour foofu qu'il faut pour mën a pour mën a corriger loolu. Euh, li nga wax par exemple par rapport à l'autre appel effectivement c'est quelque chose. c'est c'est c'est quelque c'est c'est une solution et il y beaucoup d'autres solutions yoo xam ni mën na. mën nañ ko def aussi rapport à ça. oui en tout cas euh, Assane laataa ñoo terminer ak moom pour dem ci Amidou euh, xam naa loolu da koy lijjanteeg Pierre rek <laughs> nga envoyé waale ko Pierre rek léegi euh, coowal deuxième euh, tour bi Assane je pense que Bougane Gueye Dany posé na ko noonoo non. sa Meïssa Wade autant pour moi posé na ko nee na que il faut ñu dem deuxième tour est-ce que yéen yéen koy xalaat di ko bàyyi xel di ko envisager. ñun en tout cas nekkul suñu suñu pour ñun. Euh, on sera la surprise de ces élections comme d'ailleurs nu ko Macky Sall nekkee woon en 2012 incha allah on est très enthousiaste par rapport à ça mm-hmm. bien que comme li ngay wax les foules ñun foules yi jaaxal ñu mm-hmm. <laughs> parce que am na ñuy mobiliser ak Ndiaga Ndiaye am na ñeneen ñoo xam ni peut-être Euh, c'est par des forces mystiques ni ñuy mobiliser mm-hmm. yàlla rek moo xam. <laughs> yaa ngi dugal ci mën lu ci mën am mooy cool de jour waxaguñ ko. li ñuy wax premier tour nañu wax. d'accord aller à l'élection le cinq euh, bàcc. le 24 le autant pour moi euh, dimanche euh, jël jël jël affaire yi. yéen tam diib ngeen wax. waaw. xëdd xëdd voté et puis ndogu jubilé. ndogu jubilé <laughs> avec ces 19 candidats gëm nga ni nit 19 candidats yi kenn mën na si génn si premier tour. mais mën na nekk pourquoi pas même su fekkee tey 19 candidats la am na ñoo xam ne peut-être du ñu am dara. Hmm. en tout cas ñun bokkuñu si ah. ah <laughs> parce que non ku xam ci Fall xam le plan PDF xam c'est un très bon stratège hein. Euh, a été ancien militaire et tout euh, dina dina dina jaaxal sénégalais yu bëri nag. Mm. <laughs> parce que loxoy suñu borom mi ngi ci aussi. en waaw di ko jaajëfal bu baax a baax ah. euh, euh, di la ñaanal rek en tout cas di ñaanal la Sénégal ki nga xamante ne moo gën ci moom mu daal di ñu koy borom bi daal di koy jox comme président yow aussi di la jaajëfal ci sa euh, disponibilité merci merci Salma mhm. maa ngi leen di remercier aussi pour invitation bi donc di jaajëfal Walfadjri encore une fois ak le très grand Pierre bu <laughs> muy mhm. invité tout vraiment hmm. di sant di gërëm sénégalais yi aussi di leen naan euh, nañu votel pour le président Déthié Fall euh, le dimanche 24 mars parce que c'est euh, pour l'avenir du Sénégal on a besoin de changer pour avoir mieux hmm. di sant di gërëm sénégalais yi nga xam ñoom ñoo ngi doon seetaan émission ci biir réew mi ak ci bitim réew. Hmm. di ñaanal ñëpp ñu yendu ak jàmm. jërëjëf ok jaajëf yow itamit di la jaajëfal bu baax a baax donc je pense que Assane mën nañu.